asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm waa parti démocratique sénégalais seen yaakaar tas na seen yéen wàll këpp na la ko waral moom mooy ne démb cour suprême dafa daal di gàntal requête yi nga xam ne dañ ko ko jébal di wax ne yee yaay élection yi dañu ko war a dàq ndaxte daal ni ñu convoqué corps électoral bi jaarul yoon rax ci dolli campagne électorale bi ñaar fi nag benn la waroon nekk ñu indi ko ba ci fukki fan ak juróom loolu yëpp waa cour suprême leen daal bàyyi leen rek li nga xam ne moom mooy élection yi ñu amal ko ci ñaar fukki fan ñeent ci weeru mars mars bi nga xam ne moom la ñu dëgmal julikaay bii di Sud Quotidien ne kon démba dafa mel ni nag nit ñi nga xam ne ñoom ñooy waa parti démocratique sénégalais seen carte gu mujj gi de ñoo a fa toogaloon waa parti démocratique sénégalais di xamle ne la ñuy kaas noonu àllu am solo la te nag ñoom ñu ngi ci seen dëgg aujourd'hui bii di ci quotidien ne la gën a jaaxal ñëpp moom mooy ne agent judiciaire de l'État démb yeeyul yàb bi nag jëmale ko ci wàllu gi moom kay dafa daal di xamle ne lépp loo xam ne rek jógee na fa moom def ci ànd wante nañu ànd ak aujourd'hui bii di ci quotidien ne démb kay ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Cour suprême ñoom dañoo daal di bëgg-bëgg nag ñi nga xam ne ñoom ñooy waa parti démocratique sénégalais ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak ñoom dinay tas yaakaaru ñi nga xam ne ñoom ñooy waa parti démocratique sénégalais ak spoliés yi maanaam daal ñi nga xam ne dañ leen xañ ñu bokk ci wàllu élection yi looloo colikay bi di laas daal di fësal ñu ngi ñee xamal sax ne démba ba délibéré bi fësee sax waa parti démocratique sénégalais di xam ak ndaxte gëmuñu woon ne mbir yee foofu lay mujjee li am ba des daal nañu jàpp ak du Mamadou Diop Decroix ne ñoom de <laughs> mbir yi yemul foofu de ñoom dinañu ko la dinañu topp mbir yee ba mu sës Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye colikay bi di yor yor bi mu ngi ñee xamal ne démba lañu

mooy projet Pastef bi moom mooy Jomaay di ko ci feddali wante nañu jàpp ak suñu naataango yi ne waxtaan <laughs> waxtaan de nekkete am na ci diggante Macky ak ki nga xam ne de moom mooy Ousmane Sonko te nag kii nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko moom moo ko dëggal démb suñu naataango yi di ñu xamal ne démb Ousmane Sonko daal di ne xamle ne moom ak Macky waxtaan nañ ci ñetti poñ benn bi ci njëkk moom mooy ñu li nga xam ne moom mooy élection présidentielle bi te boobu Ousmane Sonko dafa xam ne ala mukk moom dafa lànk carré ne du ci ànd ak ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ñaar

na ci digganteem ak ki nga xam ne de moom mooy Macky Sall ojolikaay bi di l'informateur ne kon nañu ko waxte na ñu descendi ak suñu naataangoo ojolikaay xam ne démb Ousmane Sonko daal dina koy fësal ay kàddu yu mel ni xema ne de moom mooy Amadou Ba ndaxte daal dina moo gën a dangereux sax ki nga xam ne de moom mooy Macky Sall ñoom sax dem nañu bay xamle ne ci yàlla bugul na ko dénk ki nga xam ne kon moom mooy Amadou Ba ojolikaay bi di l'informateur info ma ngay ñëwaat tamit eh, ci kàddu yi nga xam ne démb Ousmane Sonko eh, daal koy fësal jëmale ko ci nga xam ne kon moom mooy Amadou Ba di xamle ne bés bu ñu ko dénkee réew mi moom de daf koy jël rek jox ko ña nekk ca bitim réew lan moo waral sax ki nga xam ne moom mooy Macky Sall bàyyi ki nga xam ne kon moom mooy Amadou Ba ak Bassirou Diomaye Faye loolu suñu naataangoo yu culikay bi ñoo koy moom moo ci des laata nag ñuy amal élection présidentielle Macky Sall daal di génne nag ci kaso bi ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ak candidat bii nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye tey ndax loolu du yàqal waa Benno looloo joli kaay bi di direct news di laajte wante suñu naatango yi ñoom la ñu gëm mooy ne Macky bu doxalee noonu rek c'est parce que am na loo ngi ko làq ca suufa jeexalee ko ko joli kaay bi di stade ñu euh, ci wàllu limu gaynde yi nga xam ne kii di Aliou Cissé woon na leen démb ngir ci ñaari jongante xarito yi nga xam ne dañu koy seq ak waa Gabon ak tamit waa benn ci noonu la ñu suñu naatango yi wax ne ci limu fanweer ak benn gaynde yi am na ñaa fukk ak ñett ñoo xam ne bokkoon nañ ci Coupe d'Afrique bi ñu euh, jógee ñett ñoo xam ne dañu leen woowaat wante it am na juróom yoo xam ne dañoo nemmeeku ne ñu bees tàq lañu nag ci biir équipe bi lii moo nekkoon mbokk déglukat yi li gën a fës ci biir a culikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jom

de la Cour suprême et le principe de la suprématie du Conseil constitutionnel dont les décisions s'imposent à tous, y compris à la Cour suprême. Cependant, Maître Hamoud Ali Khan et son confrère Maître Mohamed Seydou Diagne, eux, ont plaidé le bien fondé de la demande de suspension de l'exécution du décret présidentiel. Et pendant ce temps, le premier défenseur des intérêts de l'État dans toutes les affaires contentieuses, à savoir l'agence judiciaire de adopté la position de spectateur en ne prenant pas la parole pour défendre le décret attaqué par le PDS et qui est signé par son patron, le président de la République. Invité à prendre la parole, le représentant de l'État s'est en effet rapporté à la sagesse de la Cour suprême. Ainsi donc, nous disent nos confrères du journal Le Soleil, le PDS et compagnie ont été tout simplement déboutés concernant leur requête à la Cour suprême pour l'annulation de la présidentielle. parjoint euh, les deux requêtes les a finalement déchirées. Et pour nos confrères du quotidien LAS, la Cour suprême a donc anéanti l'espoir des spoliés. Et hier donc, à la lecture du délibéré, le Parti démocratique sénégalais, nous disent nos confrères, était complètement en transe. Mais qu'à cela ne tienne, retournons avec nos confrères du journal Libération que Mamadou Diop de Croix déclare qu'ils vont poursuivre le combat. Et nous parlons de la première sortie médiatique Faye ont fait à la presse et encore présenté le nouveau projet de PASTEF, nous disent nos confrères du journal Le Quotidien. Et selon nos confrères du journal 24 heures, convaincus qu'ils seront au palais présidentiel car selon Ousmane Sonko, si tout se passe bien, leur coalition va gagner à Les propos de Ousmane Sonko figurent également à la une du journal Yor Yorbi, Sonko qui déclare donc qu'ils vont gagner à 60%. Cependant, nous disent nos confrères du journal Le Quotidien, le leader du parti PASTEF a carrément avoué qu'il y a eu des discussions avec Macky ce qui signifie donc que la polémique vient de prendre fin, du moins en qu'il y a eu des discussions entre lui et Macky Sall, le patriote en chef, qui avait traité Barthélémy Diaz de Judas et Khalifa Sall de traître pour avoir eu des concertations nocturnes avec Macky a admis avoir échangé avec le chef de l'État sur trois points sans avoir de consensus. Le premier point, c'était par rapport au report de la présidentielle et Ousmane Sonko affirme s'être opposé à celui-ci. D'habitude, si prompte à donner son point de vue, même pour un silence bruyant quand le report a été acté. Et sur le deuxième point, qui est la loi d'amnistie, Sonko a affirmé qu'il n'est pas demandeur et qu'il avait exhorté ses députés d'interroger la ministre de la Justice sur le champ d'application de la loi avant d'adopter une position. Et ce sont donc les deux points du dialogue que Sonko a partagé. Qu'en est-il du troisième Nos confrères du journal Le Quotidien n'ont pas la réponse, mais écrivent Macky Sall. Donc, notons également avec nos confrères du journal L'Informateur que le protocole du Cap Manuel a bien eu lieu. Et nous restons avec nos confrères du journal L'Informateur qui nous font savoir qu'hier, Ousmane Sonko euh, s'en pris à Amoudouba. Sonko déclare que le candidat de la coalition Beno Bokuyakar est plus dangereux que Macky Dans le journal L'Info, nos confrères d'ajouter que selon Ousmane Sonko, si on confie les rênes du pays à Amoudouba, c'est qu'on a Sall, car ce dernier pense qu'il peut faire ce qu'il veut avec l'argent. Et justement, pour en revenir à la libération d'Ousmane Sonko, nos confrères du journal Direct News se demandent si le chef de l'État, Macky Sall, qui à 10 jours de la présidentielle a fait sortir de prison Ousmane Sonko et son candidat Diomaye suite à la promulgation d'une loi d'amnistie, a une autre carte à jouer. Pourquoi Macky s'empresse-t-il d'imposer une loi d'amnistie avec comme agenda de

provenance de 23 canistes, 3 euh, revenants et 5 novices. C'est tout à vos journaux et très bonne